ban Sékou Touré ngay wax yow Sékou Touré ban bu Guinée Sékou Touré <laughs> wow wow wow wow waaw waaw be bu reetaan eh bu reetaan <laughs> yo lay wax ci Touré bay yow ah baax na ah Sékou Touré de bu la déggee du ko dal ci yow de Bafariti balak. Ah. Ah. fazer saya hein eh. Wow. <laughs>